bisimila seen xibaaru tàggat yaram Pape Bouba Diop nekkoon doomi réewu Sénégal moom mi le mi ngi judd le 28 janvier 1978 Dakar euh, ville bu mon moom job Bouba Diop nag bu ñuy wax ci li nga xamante modi parcours 1997 japp 1999 mon, nekkoon na fële nga xamante modi ASC 1999 japp 2000 mu nekkoon fele ci Vivi Sport 2000 japp 2001 mu nekkoon fele ci Neuchâtel 2001 japp 2002 mu nekkoon fele ci Grasse Chapelle 2001 2004 mu nekkoon fële nga xamante ni moo di RC Lens 2004 jàpp 2007 mu nekkoon fële ca Fulham ba tey 2007 ba 2010 moom Pape Bouba Diop nekkoon na fële ca Portsmouth 2010 2011 mu nekkoon fële ca Athènes 2011 2012 mu nekkoon fële ca West Ham 2012 2013 moom Pape Bouba Diop nekkoon na tamit fële ca Birmingham City moom mi leen nag ñu leen fàttali. ni euh, tàmbali na carrièreu footballam ba ay atam tolloo ci euh, juróomi at. moom ak euh, ki nga xamante ni moo di frère am buy wuyoo si tur Lamine moom Pape Bouba Diop nag bëggoon lool di jouer euh, ci euh, biir mbeddu Dakar yi ci loole nag mu nekkoon na mu doon jouer ci post bu milieu terrain ci club bu ñuy woowee Ndefane Saltigué foofu la daal di jóge dem fële nga xamante ni moo di ASC Jaraaf ca at mu ji topp 1996 moom it daal di nay amal ay programme fele ci équipe senior bu ASC Jaraaf fofu nak ñu ràññee won ka fa lol lol mom Pape Bouba fofé sax la dal di jóge dem fele nga xamante modi Europe ngir continuer li nga xamante modi carrière footballam ba mu demee fële ca Europe nak mom Pape Bouba Diop daal dinay jaar fele ci Suisse ci atum 1999 moom Pape Bouba ci si la nekkoon fele ci Neuchâtel ak fi nga xamante modi VV Sport ba mu Suisse. Sa dem na fele ci lance en janvier 2002 mu amone fa ab contrat bu nga xamante tollu won na ci juróomi at ak genn wàll waaye joué wu fa lu dul match ci diirub juróom benni weer ba tax club bi le dal di don li nga xamante modi vice champion bu France bu 2002 fofé sax meun nañu japp ne Pape Bouba Diop ci parcours am bi mu defé fele ci Europe fa la ko ku melni elage El Hadj Ousseynou Diouf Pape Sarr ak Ferdinand Coli ak yeneen ci ay joueurs moom la Diop daal de jouer ay ci Ligue 1 wane fa ay performance yu ama am solo foofee nag daal ba mu fa jugee dem na fële ca Angleterre daal di fay wane ay jéeya ñu daal di koy ràññee bu baax a baax foofule ca Europe ba mu jugee foofu nag ci 2002 la ñëw fi nga xamante ni moo di équipe nationale bu Sénégal foofu nag daal di na fay wane comme niñ leen ko waxee rek ay performance yu am am solo moom mi sax liñ koy ràññee moo di ab but ba nga xamante ni dugaloon na ko ci coupe du monde 2002 ci diggante France ak ki nga xamante ni moo di Sénégal nekkoon but ba nga xamante ni taxoon na moom Pape Bouba Diop ñu ràññeeku bu baax a baax mu nekkoon nag meilleur buteur sénégalais ci phase finale bu coupe du monde ak trois réalisation yi nga xamante ni amoon na ko muy réalisation yu ama am solo tey jii nag di vingt neuf dimanche vingt neuf novembre deux mille vingt moom Pape Bouba Diop ginnaaw bi nga xamante ni amoon na feebar bu ñuy woowee la maladie de Charcot tey jii Pape Bouba Diop daal di nay génn àdduna niki tey fële ca France ñu di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana.